sëriñ Abdoulaye Faye sëriñ Abdoulaye Faye mi ngi gane àdduna ci atum 1870 ci dëkk bii di Godagen Godagen mu ngi ci wetu dëkk bii di Njaga Ñaaw ci suuf sii di Mbuur sëriñ Abdoulaye Faye doomu soxna Soguña Mbéri la ak ku ñuy wax sëriñ Géej Faye moom am na ñu bokkal kii di soxna Soguña Mbéri muy waajuram wu jigéen ñu ràññee ci ku ñuy wax Waali Géej Faye Demba Géej Faye ak Njaara Géej Faye ak moom sëriñ Abdoulaye Faye moom bi mu ganee àdduna ci atum 1870 ci dëkk boobu génn waajuróom wu góor di sëriñ géej fay ku ñuy wax yaxar fay la ko tudde woon waaye tur wii di abdoulaye fay sëriñ tuba seexul xaddim moo ko tudde ginnaaw bu mu jaayanteeg moom laataa ñu leen di nettali mbirum sëriñ abdoulaye fay mii te waajuróom tudde woon ko yaxar fay ñu delluwaa tuuti ci ak feeñu jamonoom ci dëkk boobu du godaa gen dëkk boobu ay ceddo lañ boole ko nekk nag lii di ay séeréer te lislaam itam bariwu fa woon doole laata ab nawet di ñëw wala jigéen tollub diggante laataa lépp di xew danañ ko bu ëllëgee lan mooy xew noonu itam ni lañ ko amalee ci waajuru sëriñ yaxar fay mii bi mu tolleeb diggante laataa sëriñ yaxar fay di feeñ listixaar nañu ab mbiram ci lañ xamale soxna si sugg naa mbiri miy waajuru sëriñ yaxar fay wu jigéen ak kii di sëriñ géej fay miy waajuru sëriñ yaxar fay mu góor di leen xamal ne doom ji ñuy séentu de bu feeñee jamono boroomu tur lay doon te ku ràññeeku lay doon ci njaboot gi ci lañ xamale soxna si di sugg naa mbiri miy waajuru sëriñ yaxar fay mu jigéen di ko wax ne ci dëkk bii di ndeer ndeer nga war a ame nag lii di doom ndax dëkk bii di ndeer ndeer kat ci tund wa séeréer si daje woon nañ ci di wax ne képp koo xam ne nii listixaar nañ ne doom ji nga war am war naa nekk ku siiw ci njaboot gi ci dëkk boobu ngay amee doom ci teewaayu mbooleem séeréer si doomu naa mbiri bii nag di sëriñ yaxar fay te sëriñ tubaa seexul xaddim tudde woon ko sëriñ abdoulaye fay ci dëkk boobu di ndeer ndeer la feeñ lii di jamono ndax séeréer si xamoon nañ ne boroomu tur la fa séenee doon mu wéy nag desandi ci dëkk bii di godaa gén gi mu cosaanoo ba mata dal lii di alxuraanul karim waaye ay waajuram luñ ko dara ndax booba kat ay séeréer lañ te lii di ay ceddo lañ booba itim lislaam duggagul ci woowu tund sëriñ yaxar fay wéy di màgg boole ko nag di nekk nag waxambaanewu séeréer wu ràññeeku ca tund wa ndax kat ay waajuram listixaaroon nañ ba xam ne kii na kuy siiw lay doon noonee ñu ko waxee woon itim seen njortu naxu leen ci jëmm jii di sëriñ yaxar fay sëriñ yaxar fay ginnaaw bi sax bàyyikoo a fi ci dëkk boobu mu cosaanoo di godaa gen ànd tuuti nag sanc dëkku boppam tudde bokk benn baay mu nekkub xaritam muy ku ñuy wax jaaga fay ngir dem sanc dëkk boobu ñu tuddee sancub godaagen mu nekk ci dëkk boobu di sancub godaagen yorub dëkkam yor jikkoom ak melokaanam yor doole joo xam ne nii tim jaaxal na ñépp akub xam-xamam képp koo xam ne nii dégg na na yor nga xam-xam mu fas yéenee dem laaj la xam-xam ba boo yoree juritim mu fas yéene koo jël ci yow boo yoree alal mu laaj la ko soo bañee mu faat la noonu daal ni la ko toppoo woon ba ci tund wii ñaaw sax amu lu yaxar fay soxla mu ñëw jël si njekk ak teraanga soo bañee nag mu jaay la doole jël ko ba ci tund woowu daal moo fa nekkoon buur di bumbi boole kook yor dooleem nag ak lii di xam-xamam noonu nag ni la ko toppoo ba dégg dëkk bu ñuy wax njigéen mi ngi nag ci dëkk bii di paylaar am na kuñ fa doon wax njaara yàkk njaara yàkk moo mook sëriñ yaxar fay miin ñoo bokkoon itim lii di jikko bokk itim ni ñuy doxale ci tund woowu ginnaaw bu sëriñ yaxar fay demee nag ne moom day dem ci dëkk boobu di njigéen nekk nag ci dëkk bii di paylaar ngir fas yéene tegi loxo na kookee fa nekk di njaara jógee nag ci dëkk bii di njigéen ca suuf sii di paylaar ngir fas yéenee tegi loxo nag kii di njaara yàgg waaye bi mu eggee nag ñoom ñaar nag ñoo tolloo lépp moo xam ci xam-xam ci doole ak lii di jikko ñoom ñaar nag mujj nañ nag waxtaan ba juboo lëkkaloo nekk nag lii di ay gaayin ci tund wa boole seen doole nag fas yéenee wéyal nag jikko ji ñu yore ba ci tund woowu daal ku tudd yaxar tudd njaara ñoom ñaar nag ñu nekk xarit yu ràññeeku ba kuñ dégg na yaa ngeeg dara nag ñu fas yéenee ñëw jël si la nga yor ngir boole ko ci seen alal ba ci tund woowu daal amuñu fa lii di moroom muy kii di yaxaar ak njaara yoon woowu daal lañ jël toppoo ko ba dégg nag ku baax ki sëriñ Tuubaa seexul xaddim ci dëkk bii di bawal ñu leen di xamal ne am na ku ñuy wax Moodu Mbàkke taxawal na sax aw yoon wu tudd Bàmba ji mi ngi ci suuf soosu di bawal préparé nañ nag lii di aw yoon ngir ñëw bawal ngir jël si ku baax ki sëriñ Tuubaa seexul xaddim bu fekkee ne ak jur la yor ñu te ko loxo bu fekkee ne xam-xam la yor na ñu boole ko ci seenu ñoñ bu fekkee ne nag alal la yor ñu jël ko ñu préparé seenu yoon jàpp seenu bis njaara yag mi ngi doon wax kii sëriñ yaxar fay bu njël jotee danaa jóge ci dëkk bii di bay laar ngir ñëw ci sancub gadaa gen ngir ñu ànd dem bawal xooli ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ñu tàggatoo ci yooyu kàddu njaara des ci dëkk bii di bay laar sëriñ yaxar fay dem ci dëkk bii di sancub gadaa gen bi njël jotee ba ginaar gi njëkk a sab kii di sëriñ yaxar fay di xaar njaara yàkk waaye gisu ko ginaar gi dellu sabaat mu di ko xaar waaye gisu ko ginnaaw bi nag la sëriñ yaxar fay war aw fasam ñëw na ci dëkk bii di njigéen ci suuf sii di baylaar wala lu xew njaara yàgg di ko wax ne biddantiwuma dara xewul waaye dama mujj fomm rek lii di yoon wi sëriñ yaxar fay di ko laaj lan moo xew ba nga fomm lii di yoon wi te ñun ñaar ñu waxante liñ waxante ba jàpp suñu yoon nga ne fomm nga njaara yàgg di ko wax ne yaxar li ma gis de soo ko gisoon doo mën a dem ndax kañ war a fekki de ca bawal di sëriñ tubaa seexul xaddiim côté bu ne natt naa ko fa biig ci guddi waaye daal ku ma yéem la ndax ñeenti xibla yi xibla bu ne xool naa ko ci mënumaa gis fu mu tàmbalee mënumaa kaw ak suuf itam xool naa ko ci mënumaa gis fu mu yem mënumaa gis fu mu tàmbalee loolu daal a tax ma bëgg a fomm kàddu yooyu la njaara wax sëriñ yaxar fay sëriñ yaxar fay di ko wax ne lool rek moom moo la tax a bëgg a fomm man de duma fomm sama yoon damaa nekk jàmbaar joo xam ne nii duma waaju yoon ba pare di ko fomm ku ma jaar dem bawal seeti ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ba xam naka la nekke foofa njaara di wax sëriñ yaxar fay di ko wax ne kon de man dem nga deful da nga dee juróom-ñaari fan nag laa la may soo dikkul danaa wax ñu saraxal la sëriñ yaxar fay di tontu njaara yàgg di ko wax ne man de fu ma jaar dem bawal baye boo ma dof wala ma dee waaye moom sama yoon duma ko fomm ci yooyu kàddu nag lañu tàggoo njaara yàgg nag des nag ci dëkk boobu di njigéen ci suuf soosu di paylaar sëriñ yaxar fay nag waru fasam fas yéene ñëw bawal ngir seet si ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ci dëkk bii di daaru salaam la fekk keroog sëriñ tubaa seexul xaddiim ginnaaw bu mu yëgloo ñu xamal sëriñ tubaa seexul xaddiim lay seet sëriñ tubaa seexul xaddim gisee naag sëriñ yaxar fay bisub keroog ginnaaw bu ñu nuyantee ba noppi sëriñ tubaa seexul xaddim laaj na keroog sëriñ yaxar fay ana sa xarit ba a yàgg sëriñ yaxar fay na waaw kii kan moo ko xamal njaara yàgg ba ma koy laaj sëriñ tubaa seexul xaddim di ko wax ne su ngeen àndoon de mooy gën sëriñ yaxar fay di ko wax ne man loolu taxumaa jóg sëriñ tubaa seexul xaddim di ko xamal ne man kay xam naa lan moo la tax a jóg ngir ko lool kay moo nekk say tànk sëriñ yaxar fay di ko wax ne kon kay sëriñ tuuba seexul xadim di ko laaj lan la jublu ci jooju wax mu di ko xamal ne loo nekk daal ma nekk ca fas yéene jaayanteeg yow seexul xadim di xamal kii di sëriñ yaxar fay lii di ndigal moo fi am ak fas yéene liggéey li ñu tuddee tarbiya sëriñ yaxar fay di xamal ku baax ki sëriñ tuuba seexul xadim man daal nekk naa ci dugg naa ci wileew yoon sëriñ tuuba seexul xadim nag di ko xamal ne wileew yoon de ku ci nekk foo bëgg egg ci suñu boroom danañ la ca eggale ci la ko laaje nag noo tudd mu di ko wax ne yaxar fay lañ may woowe sëriñ tuuba seexul xadim itim di ko wax ne Abdoulaye Faye de moo gën yaxar kon bisub keroog itim la ko sëriñ Touba tuddee Abdoulaye Faye sëriñ yaxar Faye ñu gën koo xam ci sëriñ Abdoulaye Faye nag wiy desandi Daaru Salaam di liggéey ba def fi ab diir ginnaaw bi nag la ñëwaat ci ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddim di ko wax ne dama bëgg a delluwaat ci njaboot gi ndax bisub keroog kat bi may jóge foofu di ñëw fii waxoon nañ ne ma su ma fi amee ay bis su ma ñibbisiwul danañ ma sarxal su boobaa itim danaa dof wala ma faatu ma bëgg a delluwaat ci njaboot gi nag ngir di leen taxoon ma bëggoon a delluwaat sëriñ tubaa seexul xaddiim itam joxoon na ko ndigal mu delsiwaat ci dëkk boobu di sancub godaagen laata muy delsiwaat ci dëkk na nag ci dëkk bii di pay laar ngir di sancub godaagen di laaj si ba xam sëriñ yaxar fay ñibbisi na ci tukki bi mu demoonam ndéet bi mu ñëwee ci dëkk bi nag magu sëriñ yaxar fay la fi fekk di jaga fay ginnaaw bu mu ko laajee sëriñ yaxar fay jaga fay mi ngi ko doon xamal ne yaxar de tukki bu yàgg nii musu ko tukki njaara di xamal jaga di ko wax ne newoon naa lii de boo ci demee boo dëful danga nga faatu sëriñ yaxar fay ñu gën koo xam ci sëriñ abdoulaye fay jóge nag ci dëkk boobu di daaru salaam del si nag ci dëkk bii di sancub godaa gen bi mu egsee nag mu jël yoon woo xam ne nii ñoom xamuñu ko woon ndax ñoom ay ceddo lañ woon te tuubuñu woon mu tàmbalee julli ak a jàpp njaara yag di xarit bi di ko wax ne waxoon naa la ko newoon naa la soo demee soo dëful da nga faatu kon nag mujj nga dof magam ji nga xam ne nii moom la àndaloon bu muy sanc dëkk boobu di sancub godaa gen di jaga fay ñu tàmbali nag di ko xeex ca tund wa jàkka jum defar ñu daaneel ko sàkketoon na fa sax lii di jàkk ñu mujj ko taal ngir di wax ne kii di sëriñ Abdoulaye Faye dof na ndax yoon wii mu jël bi mu demee ci tukki ba la ko indaale ndax ñoom xamuñu woon loolu soxna mu dëkko woon dem nañu itam ba bëggoon koo tas doon wax mbokki soxna si nañ ñëw jël si seen doom ji ndax kii di yaxarkat dof na soxna si nag moo tuddoon di sin kor ndaw mu meññi sax njabootam gii mu def nag ci dëkk boobu ab diir ginnaaw bi nag la fa bàyyi koo waat ñëwaat nag ci daaru salaam seet si waat baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim yàggaat na ci dëkk boobu di sancub Godaagen fekk na mbokki soxna si ñëw jël si soxna si waaye soxna si mi ngi leen doon xamal ne moom daal yaxar rek la bëgg nañ ko bàyyi mu dem fa ndax moom la bëgg waaye saa bu jógee ci ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ñëwaat ci dëkk boobu di sancub gen waa dëkk bi di ko xeex boole koog nag jàppee ko rek ku wérul ba lum naal ci wàllu lislaam ñu daaneel ko noonu la ko toppoo ba ni fi sëriñ tubaa seexul xaddim bàyyi koo dem ci géej gi mu des nag ci dëkk boobu di sancub Godaagen foofu la 1902 nag def na comme ni ko mag ñëpp defe ñëw ziyaar si ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim gisee waat moom dëkk boobu di sancub Gadaagan ñëpp rek mujj nañ ne nër topp nag ci ginnaawam ndax defarub seexul xaddiim du moroom sëriñ tubaa seexul xaddiim ab diir la fi def amaat fi takk-takk ak kii di mbaaxaan dem ci réew mii di gànnaar gànnaar googu sëriñ Abdoulaye Faye dem na fa bi muy dem gànnaar lem la yóbbaaleel ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ci tund wow di sànjara ci dëkk boobu di sancub ngir mën a suukar liñ bëgg a suukar su nawet masaa ñëw ci tund woow lii di mbuumum nduur mi la ñuy jël ràbb ci lii di ay lëm aj ko ci kaw kàdd yi su noor bee nag bu yamb yi ñëwee ci lëm yooyu la ñuy dugg ngir mën a amal lii di lem lem jooju nag la mag ñi daa jël daa ci suukar lëm yooyu ñu daa ràbbe lii di mbuumum nduur séeréer moom sigir la koy wax lem jooju sëriñ Abdoulaye fay amoon ci sigiram nag la dajale woon yit ko ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim ci gànnaar keroog bi mu eggee ci gànnaar ba jox ko ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim mi doon wax sëriñ Abdoulaye Faye bég naa lool ci lem ji ma indil maa ngi lay xamal ne diirub li ma nekk ci tukki bi su ma masaa bëgg a jëfandiku sama baaraam rek laay sëpp ci lem ji ma yoroon ci lool dong nag laa daa jëfandiku sëñ Abdoulaye Faye moom bi mu demee gànnaar wax na ne seexul Xaddim nettali na ko lool di ko wax ne diirub lim dem ci tukki bi muy ci atu 1895 ba 1902 su masaa bëgg a jëfandiku ji mu yor rek ci lay sëpp baaraam bi ñam lool dong nag ci la daa dund ci la ko wax ne sa lem ji lool la may fàttali mu des gànnaar ab diir sëriñ tubaa seexul xaddim ñaanal ko mu ñibbisiwaat sénégal nag toog di xaar seexul xaddim ci yoonu gànnaar wow nag ba muy dem àndut ak kenn menn moom dong la 1907 seexul xaddim jóge gànnaar ñëw ci yéen jolof ca yéen jolof itam sëriñ abdoulaye fay daana fa dem di ziyaare ji ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ginnaaw 1912 njaareem njaareem googu itam sëriñ abdoulaye fay daana fi ñëw di fekk si ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim njaareem googu sax la jote ci sëriñ tubaa seexul xaddim njaareem Abdoulaye Faye daana ko fi indil ay addiya boole kook lu mu bay ci dëkk boobu di sancub godaa gën indil ko ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim daana ko fa ràbbalitim lii di ay gongo su masaa di ziyaare si ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim bu masaa dajeek lenn ci yoon wi du nangoo dugg ca loola ndax moom daana wax ne di seeti ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim di war dara wala ngay dugg ci dara day wàññi yoolub gis ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim moo tax bu masaa jëluw yoon ngir di seet si ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim day tànku ba ni mu egsee njaareem googu am na bis ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim di yónnee ci dëkk bu sell bii di tuubaa yam ci sëriñ abdoulaye fay yónni ko bisub keroog sëriñ abdoulaye fay yoon wi dafa gaaw lool loolu itam taxoon na sëriñ tuubaa seexul xaddim daa ko wooye yaaram mbàkke ba ñaare bu seexul xaddim daa yónnee daana laaj ba xam ana yaaram mbàkke mi ngi fiem déet suñ nee ko nekku fi mu doog a yónni kaneen kon ginnaaw yaxar ji ko waajuram tudde sëriñ tubaa seexul xaddim moo soppi woon tur wi di ko wooye abdoulaye fay ci mujjëm nag sëriñ tubaa seexul xaddim daana ko wooye yaaram mbàkke moom sëriñ abdoulaye fay lii di guerre mondiale 14 18 bi ñuy tànn soldaar yi waroon a dem ci guerre bi moom itam yabaloon na fa lii di ay soldaar muy taawam bii di sëriñ Cheikh Faye akub goroom keroog sax bi taawam bii di sëriñ Cheikh Faye di dem yaayam di ndisin kor ndaw mi ngi koy xamal ne danga dem da nga dikkaat ci geer bi liggéeyal naa sa waajur wi loo xam ne nii doo fa faatoo sa nijaay ji ngay àndal nag mënuma koo garanti waaye yow moom mën na maa garanti ne da nga dem da nga dikk ndax liggéey naa ko fi mu sancub Godaagan ñëw seet si ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim njaareem ba ni ko sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim ko sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim di gërëm moom sëriñ Abdoulaye Faye jox na ko lii di ab téere ñu jàppe ko lii di ak xasida waaye keroog bi ko sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim di jox da koo lëmës jox ko ko waaye ba fintoon ni njaboot gi xamuñu lan la ndax na ko Seexul Xaddim lëmëse woon ba nëga ni kenn tàqar ñi wu ko Seexul Xaddim itam joxaatoon na ko lii di ak kurus daggoon na itam ci kawaru sikkinam jox ko loolee mu daggoon ndigalal sëriñ Abdoulaye Faye boroomam lañ ko ko dencaale kurus gi sëriñ Touba Seexul Xaddim joxoon sëriñ Abdoulaye Faye nag mi ngi ci sëtam bii di sëriñ Mbay Faye sëriñ Mbay fay mooy doomu sëriñ Moustapha fay mi nekkoon ñetteelu xalifa sëriñ Abdoulaye fay Seexul Xaddim keroog ma ngi koy dolli di ko wax ne soo demee ci dëkk boobu nga sanc nga toog fa te nekk fa te lépp lu nekk Touba danaa la ko defal foofu ci dëkk boobu di sancub Godaagen te soo demee nag bu ko tudde njaga ñaaw ndax man sama dara ñaawul looloo tax na ci dëkk boobu ci dëkk boobu lañ barkeelu ci kàddug seexul xaddiim ga ca jataay boobu itam la woolu woon kii di cheikh Modou Moustapha Mbacke di ko wax ne boole naa la ak sëriñ Abdoulaye Faye loolu moo tax njabootuk sëriñ Abdoulaye Faye wéy desandi daaru Xuddoos rawatina ci kër gii di kër sëriñ Mbacke Madina seexul xaddiim ma ngi koy wax na soo demee nag nga toog fa su may dellu nag danaa la tàggu ab diir nag la fa def ci dëkk boobu di sancub godaa genn soxnaam si mu dëkkoo woon di ndisin kor ndew am lii di gan di góor mu tudde ko cheikh Mamadou Moustapha Mbacke ma ko seexul xaddiim booleeloon guddi keroog bi soxnaam si di disin kor ndaw amee lii di gan la wax ne la ko seexul xaddiim waxoon de am na kon seexul xaddiim tàggu na ko mu xëy jóge ci dëkk boobu di sancub godaa gën ñëw njaareem di seet su ku baax ki sëriñ tuubaa seexul xaddiim bi mu egsee lañ na ko seexul xaddiim biig dem na tuubaa sëriñ tuubaa seexul xaddiim génn àdduna ci fukki fan yaag juróom-ñeent ci mois de juillet ci atum 1927 ginnaaw bu sëriñ Abdoulaye Faye ñëwee njaareem nag ngir di ko seet ñu di ko xamal ne ku baax ki sëriñ tuubaa Moustapha Mbàkke ndax kat moom la ko xaadim rasul boolee woon ne ko nag dama bëgg ngeen ànd ngir kóllëre mu jaayanteeg Cheikh Modou Moustapha Mbàkke nekkub taalibeem lépp lu Cheikh Modou Moustapha Mbàkke di woote kenn mënu ko ci moom sëriñ Abdoulaye Faye mu toog nag ci dëkk boobu ko seexul xaddim dëloon di sancub godaa gén nekk ci wetu dëkk bii di sànjara ci suuf sii di mbuur saa bu nammee Cheikh Modou Moustapha Mbàkke ñëw Tuubaa ziyaare ko lépp lu Cheikh moo ba ci lii di liggéeyub jumaa ji ndax ndokk bi sëriñ Abdoulaye Faye ma nga ca woon te jàmbaar la ca woon ndax daana nettali na leen am na bis ñuy gas di carrière bi Cheikh Modou Moustapha Mbacke wax leen na leen xam ngeen lan moo tax carrière bi nekk fii ci ndokka ñu koy wax déedéet mu ne leen keroog bi abraxaar yi toji kaaba gi picc yi ngir fas yéenee jàkkaarloo kii di abraxaar sëriñ Touba Seexul Xaddim waxoon ne picc na leen xeer wu ngeen jam kii di abraxaar na ngeen ma ko sànnil ci wetu Touba sëriñ Abdoulaye Faye na leen bi nee na lool moo tax xeer yi nekk foofu muy ndokku di ndokku yàlla lii moom sëriñ Abdoulaye Faye daana ko nettali ak njabootam lu bare bari di leen xamal na ci sëriñ bi la ko dégge sëriñ Abdoulaye fay ti musta nangoo dëkk ci dëkk bu sell bii di Touba ndax moom daana wax ne ku dëkk sëriñ bi bu yàggee nga miin ko te miineel nag fu mu am bu yàggee yabeel am te yabeel nag bu xasee am lu ne mën naa xew loolu moo tax musta nangoo dëkk ci dëkk bu sell bii di Touba dafa féete woon ci dëkk boobu di sancub Gadaagen nekk fa di wax ne foofu sax la ko sëriñ Touba Seexul Xaddiim dëloon doon na ko wax ne def ko sa Touba lépp loo danaa la ko indil ci dëkk boobu loolu sax moom moo waraloon ñetteelu xalifaam bii di sëriñ Moustapha Faye bi mu amee kër ci dëkk bu sell bii di Touba waajuróom wu jigéen wi di soxna Ndisine Kor Ndaw doon na sàkku moom mu bàyyi kërug Touba googu di ko xamal ne sa waajur wa da sëriñ Abdoulaye Faye musta nangoo dëkk Touba yow nag bul nangoo dëkk lii di Touba féeteel fi mu nekkoon muy sancub gadaa gën bi lool sax moom moo taxoon sëriñ Moustapha fay mujj joxe kër ga àddiya ndax keroog waajuróom woow di soxna Ndisine Kor Ndaw mi koy xamal ne sa waajur wa da musta nangoo dëkk Touba ndax waxoon na ne Touba moom ku fa dëkk da nga miin sëriñ bi te miineel nag bu amee bu yàggee yabeel am te yabeel nag bu amee bu yàggee lu na man naa xew sa waajuroo dëkk bii la fonkoon ndax loolu la ko seexul xaddiim waxoon muy fi la ko seexul xaddiim dëloon muy sancub godaagan danaa la ko defal ne Touba looloo tax sa dëkk boobu képp ku fa génnee àdduna duñ la denc si Touba ndax foofu la ñuy denc ngir lu ci waxi sëriñ Touba seexul xaddiim ja loolu itam tax na dëkk boobu di sëriñ Abdoulaye Faye te seexul xaddim daa ko wooye yaaram mbàkke ba rëddoon na fa sax lii di jàkka moom seex Modou Moustapha Mbàkke ginnaaw ba sëriñ Abdoulaye Faye génnee lii di àdduna nag njaboot gi tabax nañ jàkka ja ngir barkeelu ca lii di jumaa itam tabax nañ ko fa ngir jaamu suñu boroom ci dëkk boobu di sañ cub Godagen kon sëriñ Abdoulaye Faye ci dëkk boobu nag la sax ba nim génnee àdduna ci atum 1943 ci xilaaf ak cheikh Mamadou Moustapha Mbàkke mi ko seexul xaddim booleeloon ko waajuram tudde woon Yaxar wooye Abdoulaye Faye te mujj gi mu ko daa wooye Yaaram Mbàkke mi ngi génn lii di àdduna bisub gaaw ñaar fukki fan ak ñaar ciw maamu koor ci atum 1362 ci gàddaay gi gaaw ñaar fukki fan ak ñaar ciw maamu koor ci atum 1362 ci gàddaay gi dëppoog muy samedi 26 juin 1943 samedi 26 juin 1943 ci dëkk boobu di sancub godaa gen ñu yëgal ko ki fi toogoon toogaayu sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim di Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke mu wax doomam ja sëriñ Mbàkke Madina ngir mu ñëw taxawu kii di sëriñ Abdoulaye Faye ginnaaw bu mu génnee àdduna ci samedi bi ca dimanche ja nag lañ ko denc foofu ca bërëb ba mu fonkoon di ngi gis ga bisub dibéer ñaar fukki fan ak ñett ciw maamu koor ci atum 1362 ci gàddaay gi dibéer ñaar fukki fan ak ñett ciw maamu koor ci atum 1362 ci gàddaay gi dëppoog muy dimanche 27 juin 1943 dimanche 27 juin 1943 sëriñ Abdoulaye Faye ay xalifaam nag nii la tëddee ci atum ba 2013 ki ko njëkk a wuutu mooy ku ñuy wax Serigne Cheikh Faye Serigne Cheikh Faye mii sax bokkoon na ci soldaar yi ñu yóbbu woon 14 18 ñaareelu xalifa Serigne Abdoulaye Faye mooy ku ñuy wax Serigne Doudou Faye moo toog xalifa ci atu 1973 ba 1977 ñetteelu xalifa Serigne Abdoulaye Faye mooy ku ñuy wax Serigne Moustapha Faye Serigne Moustapha Faye mii la duppee Cheikh Mamadou Moustapha Mbacké moo toog xalifa ci atu 1977 ba 2001 ñeenteelu xalifa Serigne Abdoulaye Faye mooy ku ñuy wax Serigne Ibrahima Faye moo toog xalifa ci atu atum 2001 ba 2008 li ñu tudde nag doomu sëriñ Abdoulaye Faye yu góor yi jeex tak ci kaw suuf mu dese fi rek ñaari doomi jigéen muy ku ñuy wax soxna maryaama fay ak soxna jaariyatullaahi fay mim fayee soxna jaaratullaah sët yi nag tàmbalee seen maam sët bi njëkk a maamam di sëriñ abdoulaye fay mooy ku ñuy wax sëriñ abdoulaye fay moom sax lañ ko tudde doomu sëriñ duudu fay la mi nekkoon ñaareelu xalifaam moo fi toog 2008 ba nëgëni ñu koy ñaanal suñ boroom guddal aw fanam ak mbooleem sëti sëriñ abdoulaye fay yi ak ay bàjjanam yi fi desandi di soxna jaaratullaahi ak soxna maryaama fay moom sëriñ yaxaar fay ñu gën koo xam ci sëriñ abdoulaye fay nag am na bis ñu koy fàttaliku muy ñaar fukki fa ak juróom ñaar ci weer wi di weeru baraxlu bis bii la gisee woon ak sëriñ tubaa seexul xaddiim ci daaru salaam bis bi itam ci la jaayantee ku baax ci sëriñ tubaa seexul xaddiim ci daaru salaam bis bi moom daana ko fàttalikul boppam ci ak nekkinam ginnaaw bu mu fi bàyyi ko nag njaboot gi wéel nañ ko ci bëccëgu ñaar fukki fan ak juróom ñaar màggal nañ ko ay at mujj gi nag ban nañ ko di jàpp bis bi nag saa buñ ko jekkoo ci at mi waaye nag sëtam mbay fay sëriñ Moustapha Faye mi nekkoon ñetteelu xalifa sëriñ Abdoulaye Faye moom mi ngi wéyandil bis bi di ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru baraxlu ngir barkeelu ci na ko maamam ja daa defee mu jàppee ko nag cantug sëriñ Abdoulaye Faye di ci fàttaliku waale sëriñ Abdoulaye Faye mi maamam ak waajuram sëriñ Moustapha Faye di ci barkeelu waale ndax kat jëmm ji moo ko boole ci seexul xaddiim ñuy ñaan ci darajey jëmm jooju di sëriñ Yaxar Faye te sëriñ Tubaa se xaddiim daa ko wooye Abdoulaye Faye te barkeem te guddal nag fanu njabootam gim fi bàyyi moo xam doom la ba ci sët